waaw ay nay laa gën a ko ci amul kilifa xam dégg ndigal dafa baax tey laaj waaw la sa waa sa wayjur def hmm. nga d'accord ci dëgg la loolu mooy waral ngay d'accord bay d'accord ci borom kër bi la jël dëgg la waaye sama borom kër bi jël ma nag way xew ndeysaan mu nu ma doo way ndax dégg naa ku bari ko way doo bari doom laay laay doo way léegi xam nga kañ laa génn hmm. sama caat mi di say Espagne soxna umu xayri si alaaj dabbi lañ ko tuddee bàjjen bàjjen umb moom baax maa ngi lay nuyu bu baax mu ngoon yóbbu faama sama xarit waaw yaayu Yacine Ndoye moom lañ ko tuddee saan mooy sama lépp si maari ndaysaan soxna umb ñoo ko faama tubaarkàlla mhm. ah ma daal di ñëw mhm. ñëw ndakaaru gii nag ba ma catloo umb mhm. ci la ma bàyyi mooy ndaysaan dégg moo tax ma jaboot macha allah dégg fii ndaysaan dëkk ma woon fii Pikine laa jëkk a wàcc tali bu mag masa seng ñu tudd sama doom ji. dama sekki bii. waaw am Malick si. yàlla na xëppee àjjana. amiin amiin amiin yàlla ñaar tas ci barke bi. amiin caatu sëñ Babacar. ñëw ko tudd si. booba di suuf rek la suuf oto bi ma dugg dugg ci suuf si. ayi la ayi la sama jëkkër ne maam Yacine damay jaay kër gi. wuti kër gu jege tamit. ndeysaan. xam nga dama sekk bi am na ñeent fukki at ak nangam. ndeysaan. booba yàgg na. yàgg na maam. léegi nag loolu am. Mhm. mu ne ma damay jaay kër gi ma ne ko du tax. ñu dëkk fa dëkk fa dëkk fa dëkk ba Cheikh Tidiane mii judd mhm. mu ne ma damay jaay kër gi mhm. ndax waa kër sëñ Babacar yi ñëw di la tuddal si sa doom ji mhm. waa kër Seydi Aji Mari ñëw ngir man ñëw ngir man ñëw ngir yow waaw damay jaay kër gi dëgg la jaay kër gi jënd beneen kër mooy arrêt Dial Mbaye uuf tali ma dégg ndigal ànd ak moom ni koy ci ndeysaan loo wax loolu laay def ñu ànd wuti géej waaye te booba gis nga boo ñëwee arrêt Dial Mbaye boobu waaw fa mu jàkkaar loolu lépp ay flawo ngay seen géej. ay hmm. lay ma toog fa yàlla. dëgg la yàlla jox ma beneen tali. ndeysaan. ma uuf waaw waaw. ndeysaan. fii nag. Hmm. ne fi ak samay doom. Hmm. yàlla ma ko jox. ndeysaan. ndax dégg ndigal. dëgg la ak am kilifa. ndeysaan ak yow. dëgg la. loolu rek. ci ay way loo njëkkee. dafa mel ci ay jàng nga njëkkee de. waaw ay jàng moom njëkk naa ci bu yàgg yàgg yàgg. Mm-hmm. ay jàll xam nga boo yaroo ci diine. Mm-hmm. dafa am lu bari looy xam. dëgg la soo ma saana bëgg a woy. Mm-hmm. ndeysaan bu ñëwee Dakar nag nekk soxna Xadi Njaay. am na benn daayira bu ñu doon wax daayira bëli gu dog. bëli. bëli gu dog. gu dog. daayira boobu ñoom mbay fay ko yoroon. waaw ak ku ñuy wax Boy Naar. ma nga woon Riben 2. <laughs> su ma déggee tabale yi rek damay gën daw. ndeysaan di fa woy ci tabale mm-hmm. ah di woy nag di fa woy. Mm-hmm. ba booba amaguma dafa nekk ci man ci deret. waaw. Mm-hmm. allah. ba yàlla indi woy na. ndeysaan. waaw njëkk a woy nag mooy loolu. yonent bi salaahu salaam salaahu alayhi wa cee laalal tuuti maam. ba déggee samay bànd. Mm. ci RTS bële ancien maison. waaw loolu laa jëkk a woy. mën ngeen cee demal ci loolu fàttali ko tuuti rek. a woy a woy rek. waaye maam woy rek yow tam nag wujj nag laalal tuuti rek <laughs> ndeysaan. asmaa liggéey kenn diine. singari yow la Ousmane Bama waaw awat di wele jigéen janangu mam jigéen ñi ku ci bëgg baax royal ci maam awat di wele jigéen janangul am Ousmane Bama baax ma roote na waalo toggee jolof njaay mën a yaa ngay bax fa njaarle reer ba jag saaw waaw ma wadd wele jigéen janamu roqoyeetoo safeetoo mam anta yaasin jaal jigéen ña daan dikkatal maam Maodo ca jàkk maam Anta Yaasin jaar jigéen ña jàng du këtël maam Maodo ca jag saa jéggal awar bi lele jigéen janangul a ci bëgg a sëy am ju baax a baax da ngay dégg sa ndigalal way jur déggal sa borom am ku baax a baax mag ña danoo baaxoon soxna fa war de wele ma ca gaaya koko liggéeyal mam Ousmane si man jaara bu sama ca Poroxaan ndeysaan moo liggéey ba am Sëriñ Tuuba mam Asta Jànqa ndeysaan moo liggéey ba am Baay Ñas ndeysaan ay waay mam Kumba moo liggéey ba am li maama Kumba Ndooy waaw waaw góor gàcce jàmm leen te ngeen nangoo sëy te digg ndigal ay xale yi maanu leen ndeysaan ndeysaan waaw wallaay wallaay tubloo na ca dog teral ñeeñu laajal mu saale mbaay daaw góor biram Amadou Mbaye ma baayu mën soo leen. ndeysaan. waaj leen waxtu wi jot na. ndeysaan. yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. amiin yaaka. burdu bi la ñuy séntu waaye gàmmu gaa ngi nii. ndeysaan. yal na yàgg te sax lool. amiin. sama doom yi ci télé bi. ndeysaan. sama rakk yi ci télé bi. ndeysaan. ñooñu la seen maam daan woy ba Malaaji Malick Si. ndeysaan. moo tax ñun daal Maodo la ñu xam. Maodo la nu jigéen ja nangul maam Ousmane Ba ma macha allah jigéen ja nangul Ba am aas tubaarkàlla juumuñu ndaanaan daal macha allah ndaanaan rek lay doon boo gisee sama maam bi mu koy way ak laaj tey macha allah nga gis ni mu ko woyee woon na la ko waat mu neex lool mbaay ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga dund téeméeri at yu commencé waat tey ndax bu sët ñaanalee maamam day dal te yow maam dinga fi yàgg te loo fi yàgg rek mbaay muy gën a neex euh, ñu dugg nag ci diggante waa kër Sidi Hadj Malick ak Alaaji Rawaan Ngom ndax kenn mënut a tudd waa kër Sidi Hadj Malick te tuddoo Rawaan tuddoo Haadi Touré ñu di la laaj diggante boobu sëñ Hadi. sëñ Hadi Touré waaw sëñ Hadi Touré. dégg ma naan rawaan raw na gaañ. waaw man Maodo ko waxoon. ndeysaan. waaw. Mhm. way hmm? lii du sama wax. waaw lii du waxu kenn. Mhm. ñu ne mag ñee ko waxoon baay. Mhm. rawaan ma ca paal raw na ay gaay. ndeysaan te sëñ sëñ Hadi ko waxoon. dañ daan ànd. ndeysaan. àndandoo la woon. Hmm. góor gi rawaan gëm sëñ Hadi lool. moo waral loolu yoroo ko laaj ba nëgën. ndeysaan. sët yi. Hmm. doom yi ñëpp Seydi Hadji Malick. Hmm. maam rawat ko. ndeysaan digganteem hmm. de. waaw ah. Paal ak Tiwaawoon benn góor gi ëmb si si waaw sama sama sama Baye Moustapha Cissé koy nuyu. di ñaan yàlla ay yaxam. gën a sedd sedd sedd ñu di ko ñu di ko ñaanal wax ak ñoom hmm. ñu ne ko dañoo bëggoon boo boo juddu yonent bi salaaw salaam sallallahu alayhi wa sallam boo ko màggalee ba pare hmm. ñun ñu ngénte ko hmm. moo waral paal ñi dañuy def juddu bi ñee ngénte d'accord des comme comme waa Ndiassane danoo yàgg comme ni Ndiassane di def rek comme ni Ndiassane di def ah. loolu nag moom diggante yooyu dafa yàgg de. ndeysaan. Euh, moom El Hadj Malick àndul woon moom kottu de. Hmm. dafa àndoon ñu ñu baax ñëpp nag. ndeysaan. ñu baax ñun nag ñooy rogalaat ba suñu jot yeneen. Hmm. ñooy ñëw ba léegi. ñoo baax ba tey. ndeysaan ba seen i sët. baax sëñ Adi Touré nag. waaw day lépp seen i aju. ndeysaan ba mu jël njabootu dégg ko. mu hmm. jàngal El Hadj Bes da baax alxuraan. tubaarkàlla waaw. sëñ Hady. suñ maam Hady. laay léegi. macha maam day loolu jar naa baamtuwaat bu baax. laay baax. Mhm. ay Umu Xayri si Malick da maam Yacine Ndoye. waaw waaw. Xadi. Mhm. walaay sama waa ji. <laughs> da ngaa dëkkoon ak ñoom. waaw damaa nekkoon ak ñoom Màkka. ndax Samsidine Ndoye. Ah, moom ambassadeur. waaw mooy mooy wayjuru ñoom Yacine Ndoye. waaw. mu xay di yaasin na ko um mhm. ñu jox ko um ci mhm. alal ndeysaan ah, waaw tubaarkàlla ndeysaan si daa ji Maalik mu seq ak seen aad na mhm. ndax ku la wóoluwul du jël doomam dénk ko dëgg la waaye ñu dox ko muy Ayda Yaasin mu am ci am ci Maodo Touré. dëgg la. ak Moustapha mhm. ak jigéen ña. dëgg la waay. ak yeneen góor. dëgg la waay. Maodo Touré moom moom lañ joxoon yaay si fi dabbaax. Mhm. ndeysaan dama muy xale. waaw. sëy moom ba yàlla jël ko. Mhm. am ca njaboot gi mu am yàlla na barkeel si. amiin yaaka amiin yaaka si Malick. mu xaar si mii. moom la ñu joxoon. bàjjen umu Samsidine Ndoye. mu sëy ci am ca njaboot yàlla na ko barkeel. amiin wallaay amiin yaaka amiin yaaka. kon nag. Ah, mini yaakaar da laaj lu garaaw. Mouhamed ca mag ña. Hmm. ñu hmm. wallaay. yal na ñu leen yàlla fayal. wallaay wallaay. loolu lépp ñoom la. xam nga xam nga boo gisee ma laaj la. ci bàjjen umu xayri si. Malick Dabaax. bu suñu way wayjur Samsidine Ndoye. Hmm. bàyyi Yacine Ndoye macha allah. wallaay. di ko ziyaara bu wér. que di ko dëkk ay loxo moom itamit di ko ñaan. mu ñaanal ñu ci émission bi waaw ndax bàjjen umu xayri dafa fonk 7TV day suivre suñuy émission ah. bàyyi ñu xel si Malick kon bu ñu toogee fii ngay doomi diine ji di doomi Tiwaawan faw ñu laaj la sa digganteek bàjjen umu xayri ak sa digganteeg macha allah waa kër maam Abdou yàgg ñoom nu ngeen demee maam dafa bari waaw yàgg hmm. ndax dañoo man Tiwaawan laa juddoo. dëgg la. waaye gis nga euh, ngoy waaw. ragal péete day xaje cër. Mm. xaje wóor sax nga cër lay xaje. laay laay li laa. ba amul péete. Mm. doo am cër. dëgg la. man damaa féete ak Seydi Hadji Malick ca fànn. Mm. lu may rasu. su ma deewee ci leneen sax damay insister. ndeysaan. man maa la wax lii man. Oh. ci leneen. dëgg damay insister. waaye bu dee Seydi Aji Malick mm. damay direct ndax boo fumister doo mën a féete déedéet boo bëggee dërëm doo mën a féete maa la wax lii maam boo dee wala yàgg doo mën a féete laay laay li laa féete ñoom la asukan mbaay mm-hmm. mm-hmm. mooy sama taawu yaay bu jigéen mm-hmm. sama baay tudde ko asukna asukan madame Sembe yaay Cheikh Mat Tidiane si almaktoum Pape Malick mi nuy jooy ak sëñ Abdou Aziz Al Amin ndeysaan soxna Umu jigéen si Malick borom waañ wi. borom waañ mu jox ko ko. Mhm. mu yar ko ci kër sëñ Babacar. Mhm. man ma judd ba fer sama yaay jox ma as kon mu yar ma. Mhm. mu daan jàpp sama loxo du ma yóbbaale kër sëñ Babacar. Hmm. xam nga ku ma ci kër ci waaw ci sëti mu la njëkk am ci nit. tey. ñoo bokk yaroon loo ca taax ma lañ daan dàqante. ndeysaan. ba tey yooyu sama nit la. ndeysaan aw ma changement. déedéet. yow xanaa xam ne nga fekkuma ci kenn ci kennam. déedéet. man dem ma wuri kenn ci kennam. wallaay dëgg la mbaay. masa ba ñëwaay wax yàlla jox ma kalaay. dëgg la waay mbaay ñaan yàlla nag mu yokk ba ñëpp ñëw. Mm. te lu yaatu kenn du ko xatal. dëgg la. mooy lu yaatu. déedéet kenn du ko xatal. wallaay dëgg la mbaay. da ngay yaatal ñëpp. wallaay dëgg la mbaay. loolu moo am sama diggante ak Seydi Hadji Malick. Mm-hmm. bi ma ñëwee nag euh, nekk xale. Mm-hmm. sama yaay feebar. Mm-hmm. ab ma as ni ko abal ma ko ma dem ca docteur ba ca hôpital Dantec. waaw ñu téye ko. may dem kër Yaxadi Njaay di jëli añ ba. 29 la woon boobu boobu maam am di dëkk gunu euh, euh, kii dëkk gunu. Tëleen. déedéet. ah Liberté 6. Liberté fii ci Badiane Badiane Umu. Badiane ca Daara ja. booba booba booba kër gu ñëw. waaw fa la Daara ne. kër ga ca guy ga. waaw. ca Réewén 2. ndeysaan. Réewén Réewén 9. waaw. fa laa nekkee xale. jëlal ma ñu. fekk fa um. soxna um di sama maas. Mm-hmm. moo tax mu nekk sama xale. Mm-hmm. sama doom ji ma tudde Kala Mbaye. Kala Mbaye mm-hmm. ma la jëkk a wax. mu nga hôpital da baax maa nit am na fa fukki at. dëgg la ba lay liggéey man maa géwél ko kenn xamu leen. jigéen ñi ma jug. ñaari góor laa am. danoo géeree. benn jigéen ñaari góor laa am. ndeysaan si ñëpp ay jigéen lañu. Mm-hmm. waaye kala moo ne Tiwaawan Umu Xayri moo ne Espagne. dëgg la. mooy mooy mooy Umu Xayri alal jabbi. waaw sama jëkkër ñooñu la jëkk xam. ndeysaan ñooñu la jëkk xam ci sama ay nit. Mm-hmm. moo tax mu tudd leen ku ne doom. mu tudd leen ku ne doom. ma ñëw nag jàkkaarloog soxna Fatou yaay soxna Ayda. Mm. mu xalifu bi. taaw Alaaji Blaise Dabakh. ndeysaan ñuy samay rak ma bokk ak ñoom lépp. Mm-hmm. yaay si fi da baax Lalla Seye ku ne dégg na ma moom. dëgg la. méttu macha allah mu kër hmm. ku ne dégg na ma moom. jey na ba kamara. Hmm. mii ci caaro yi kër sëñ Habib. ndeysaan ku ne dégg na maam pharmacie mu mu mu mu Ndeye Caba Diagne. Hmm, yow boo dee wax Kalaaj Malick dox daara ji. waaw ñu ne tamit maam Abdou. maam Abdou mës na koo jox junni. jox ko tam xaalisu ngurdu bi mu koy ubbil daara ji fii. loolu ne ko maay njëkk ci carte de membre yi xaw ma nu loolu demee. daara ji xam nga lan la woon. waaw. daayira la. daayira la. daayira rabiyatul adabiyya. Hmm. moom la ko ubbil. dërëmu ngurdu boobu. ak ñaari ñaari junni yu xonq ñaari junni yu xonq yi. ba tey umu da koo place. ba tey mooy daara ji ci jàkka ji. ji ci jàkka ji waaw. waaw <laughs> waaye nag kenn gënu leen. ziyaaram boobu itam dégg naa ñu ne ndigal la woon. maa ab doo ko ko joxoon ko joxoon waaw ma ko ma ko def ay at nag waaw mhm. ah, ànd ak si soxna fas si ndeysaan soxna fas si dëkk si fas si da baax waaw waaw ah, ñu bokk ndey ak baay bari ndeysaan ndeysaan sëñ mhm. mooy seen mag ñoom la ñu bokk ndey ak baay ndeysaan barke <laughs> li bàjjen jaal wax ci bàjjen umu xayri si dabaax mu alaaji Abdou yaayu Yaasin Ndooy sama waa ji tubaarikàlla macha allah ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér bàjjen umu dundaatal téeméeri at yu commencé tey waa maam ñu ñëwaat ak yow ba tey sa diggante Kiné euh, ci moom nga defe musique wala moom nga awo ba def musique wala lu waral njëkk ci Kiné bi ba génne euh, way bi nga way tool dinañ ci ñëw ci ñoom Aziz Ale Ndiaye dinañ ci ñëw ci kanam loolu mujj mais foofu laa bëgg a ñëw fii waaw xam nga nit bu mënee métier mm-hmm. euh, da cay góorgóorlu mm-hmm. ñama àndal nag mm-hmm. bu nu amee salusi rek day feeñ te loolu baaxul dëgg la ginaar daa mën a way dëgg la kooku mm. boo woyul sax dañ koy rey waay lay moom mënu leen lu dul woy moom lu ngeen bokk maam léegi ma dikk di gar di nekk di lu rek acca léegi ma ñëw di acca nelaam waaw dafa doon woy mm-hmm. nekk ensemble instrumental bii mm-hmm. ak i nawle gis woy xam ne loo gis lu baax baax baax am na lu ko gën a baax dëgg la ma mu génn foofu daal ber mm-hmm. ber saawam ber orchestre man sama jëkkër xam nga dama doon terewa waaw mu ñëw ba sama jëkkër ko bàyyi na sama ndey bi ñu am ndeysaan mu dima aw. <laughs> ndax man xam naa ne mën naa woy. Mm. a sekk di ma nekk nangu ma aw ko. Mm-hmm. ki bari yaa ngi bokk ndey. ndeysaan. ma la dem di ko aw. dama mm-hmm. koy aw it. Mm-hmm. ngay moo tax boo dee dem defal lu baax. wallaay dëgg la mbaay booba yàlla dëgg la bul iñaan. déedéet bul soxor déedéet. bul ñàkk yéene nit li ko yàlla may. looloo indi problème yi ci adduna bépp. dëgg la yàlla bu ne niire rek joxoñ joxoñam. wallaay mbaay. ma joxoñ ànd ak moom. man Kéréname li ma koy aw yëpp li daan dem di jouer ji. Hmm. spectacle. Hmm. du génne xam nga loolu. déedéet. spectacle jouer rek. waaw toppi aw. du génne nit génnewul kenn. déedéet. nit vocal day am. Hmm. ñu seet ba xam na ngaa woy nga dëgg xanaa xam nga woy yu amul benn amul sabar. waaw ku ko woy rek ndaanaan te moom la man moom ki na ma ànd moom ba mu génne balaay sibli waaw moom laa ko ma sa aw hmm? benn kaset balaay sibli nga ma sa aw moom laa ko ma sa aw ci moom hmm. doo ko awa balaay sibli ñii ànd bu dee dem Tamba ak bu dee dem Ndar mu hmm. damay ànd jaal ma ànd moom ba nu def super ndaje bii waaw bu alaaji mu sor bay quatre-vingt-neuf gettu geese gi waaw muy rajo bu bees bii Malick si waaw alaaj Mansour Mbaye nen ñu waxtaan ci bureau ba mu wooma heure bii ma càkk fàtte ngoone yàlla gudd fa amiin yaaka waaye sama maam mooy borom concept bi daal di may génne hmm. daal ni boole leen ci jàll baay ñu ni jàll mooy kan ñu mooy kii am da keneen laan di woo ñu ne eh ku sab xorom ki waaw nen leen jël ku sab xorom ki ndeysaan ñu jël ma jël ki da laam sama jabar sam yàlla na ko yàlla yërëm amiin waay Assane Marok Tay Samb ca la bokk. Mhm. Youssou Mbergane bu Louga ca la bokk. Mhm. Ndeye yal na ko yàlla yërëm ca la bokk. Mhm. ñun ñëpp ca la muy ubbi bi rajo bi rajo bi waaw. Malick Sy bii. Malick Sy bii. booba Nioro Ndiaye mooy mooy ministre de la femme. waaw moo ko présidé. ñu def guddi ka te booba benn télé rek fi ne. waaw muy bii. àdduna bépp da ko seetaan. ndeysaan. ku nekk boo amul télé da nga dem sa kër. waaw sa kër moom seetaan na si per ndaje. ñun booba ay cassette vidéo la ñu indi ko màkka moo tax yàllaay siiwal jaam yàllaay siiwal jaam jaam bu bëggee siiw hmm. la boo xaar yàlla yàlla fekk hmm. bon hmm. ñu daal génn ca laa génn mooy wuréy bi waaw waaw mooy ban waaw waaw jigéen ja dëgg la fii laa ko jëkk ko ñetti ndënd ñetti avocat an man muy set aa rek mu xëy naaw ci marché sànni booba piraat xew wallaay booba piraat xewul mbay waaye nag dañ koy enregistré rek teg ko ñun foo toll ñu naan jigéen ñi ku ci bëgg waaw waaw ci masa yi wër na àddina moom Talla Diagne mi ndeysaan ak masa yi nañ leen produire kii mm-hmm. Dial Mbaye mi woyam bi benn waaw am na lu ci teg am na lu ci teg dëgg la ma teg ci siis dëgg la muy Aale Ndiaye su mm-hmm. muy jaw nangoo liggéey boole ci am jot dëgg la ak Fawa Dubele bi muy ñett mm-hmm. ma teg ci El Hadj Moustapha Niang Kumba Néewlewul. waaw Kumba Néewlewul jaa jaa jaa njaay cay yàlla. laa ilaaha illallaah. <laughs> ndeysaan ndeysaan. way yëgg na loo ba nekk six morceaux. ndeysaan. ñu fay ma ko. ak fuural. ak fuural waa góor. Mhm. mu mhm. ma daal di loolu rek nag. ma mhm. ci yàlla. rek nit ñi la bëggee mhm. kaay leen bëgg ma wóoru déedéet kaay ngay def luñ la bëggee luñ la la mbaay boo defee la bëggee ñëpp lay bëgg dëgg la mbaay te ba léegi mbay dañ maa bëgg wallaay maam dëgg la mhm. bëgg laa waral may mën a nuur fay de passage ñu ngi koy nuyu bilaay bi ñu defee concept bi mhm. ma ni ko jëli ñu peex damay jëli diw damay jëli diw mu ne ma demal li ma jàll mbaay de passage may mën a nuur fay journaliste moom moom 7TV bi laa télé qui nous ressemble et nous ressemble télé bi ñu nduru ba noppi te duñu dajale dëgg li donc ci gémmiñam la sa émission bii génne moom moo la tànnal boppam ne na ngeen ma jëlali jaal mbaay waaye xam nga ma miin ma ko wallaay dëgg la mbaay yàlla xam na ko wallaay dëgg la so coppe soppeel dëgg la soppe dëgg la ca yàlla la jóge wallaay dëgg la mbaay wàcc ci yonent bi mm-hmm. dégg ñu naa Ibrahima Xalilulaay xaritu yàlla xaritu yàlla dëgg la yonent bi salaaw salaam mm-hmm. yàlla da ko sopp dëgg la bi mu ne Ibrahima Xalilulaay ndeysaan ñu ne mooy xaritu yàlla ndeysaan bi ni ko kon noo ngay def sallallahu alayhi wa sallam bi nga njëkk a way defe naa ci nga waye woon ndaag ma yoro de waaw doo ñu demal foofu tuuti maam maam di nga way nag maam sa wujj laa maam bay demal ci naag ma yoro <coughs> ndeysaan <coughs> comme ça va demee rek waaw waaw ma yoro ma yoroy sabaay fajje ngay sa yaay sambali ngeer nga naa waaw ma yoroy sabaay sambali fajje ngay sa yaay sambalinge na ma ma yoro yi sa baay fa dene sa yaay sambalinge ma naa ma yoro ndeysaan ma yoro waawaaw yaayi xaddi juuf mooy bébé juuf ndeysaan yow yaay xabisa ki lingeer la naa waaw waaw fa ñuy sa yaay parce que yaayam parce que biram jigéen fama ñen fatin seen fañ ñen gire waaw waaw waaye ma yoroy sa baay Aliou Taye baayam. ndeysaan. muy ranta soxna Mourou Fally Awa Diop Fally Matar Matar dem ba wut naan di sa njëriñ ngan gan. sa pugan nag sa man gan la li ngeen bànni. ewaay ma yoro. ndeysaan. ma yoro yi sa baay. ndeysaan. kii sama xarit la samba liggéey. ndaa ma yoro ndeysaan. repassage euh, maa ngi koy nuyu sama bàjjan bi bu baax bàjjan daag yaayu bébé Diouf tubaarkàlla. yaayu bébé Diouf yaayu Serigne Mansour. ndeysaan yaayu Xadim borom jumaa ji kii mooy ndaag. ndeysaan. mbokk yaayu Ndeye Diop Baba. waaw ah, waaw. ñaari góotel yooyu. ndeysaan. mbokk yaayu Kine Diagne. waaw waaw. ndeysaan. ñu baax ñaa ngi noonu. ndeysaan. moom monsieur Rouba maamam. Mm-hmm. maam Youssoufa Diop. waaw waaw. moom la maam Alaaji Malick wóolu woon ba dëkk ko ba jël aseetu Malick. Mm-hmm. ndax Alaaji Maxtaar Diop ay baayam. Moustapha Diop ay baayam. waaw waaw Samba Linguère nga naa. ndeysaan macha allah <laughs> sa xarit la ngeen ànd yàgg lool maam ñuy ñëw nag macha allah ci li ñuy wax xaalis ndax émission ku ko def war a wut sponsor ah, macha allah ñu di la wax ne nag ñu ngi lay bëgg nga jàppale ñu ci sa waa kër ñi muy Aziz Ale Ndiaye ah, mu ñëw ci sponsor yi macha allah bëgg nañ mu ñëw. ak bëgguñu publicité waaye nag macha allah ñu ngi koy tàllal loxo mu ñëw fekk si ñu ku am warga yi tamit mbaa nga am loo xamante ni tey jii leer na la ni dinañ ko soxla ci ataaya ji maanaam lu mel ne ndox mu ñuy naan lu mel ne jui lépp lañu soxla waaye sponsor bi nga xam ne moom la ëtt kër ndaanaan yi gën a soxla di ci ànd ak télévision bu mag bi muy ataaya ji ñu ngi ci woo tey yëpp tey yëpp leen ñaan ñu fekk si ñu macha allah. macha ah, gis naa itam ñuy fabriqué ay naana ñu ngi leen di woo ndax boo nee warga ni naana mhm. te léegi xam nga consommé local bi maam dafa liggéey lépp mhm. ngun ngun bii ma yor rek am na ñoo xamante ni macha allah defar nañ ko ba mu jekk ba ci citronnelle bi yëpp ay faj. dafa neex dafa neex mboolem nag koo xamante ni macha allah daal yaa ngi seetaan bi émission ñu naan ëttu kër ndaanaan yi ci télévision bu mag bii ñu naan la 7TV laa télé qui nous ressemble et nous ngoy caaleñ lay tàllal loxo di wax nag sama maam jaal mi mu tàllal lañu ay loxo. amul problème. ci koo am rek ci sponsor macha allah mu fekk si ñun daanaka société yi am na ci ñu mu jur. dëgg la. ñu Aziz Aly Ndiaye. waaw waaw. El Hadj Modou Mbène El Hadj Dame Mansour. ndeysaan. Baye Dame Global. waaw waaw. kooku tamit. Mm-hmm. Baye Dame Diop ko jur. waaw waaw. muy As Diop. waaw. te ñooñu ñëpp it dañuy bëgg seen marchandise jar. dëgg nga loolu. El Hadj Modou Mbène mooy borom feer yi. waaw. Njàmbur industrie. <laughs> koo koy kaas baa ngi nii maam daal bu yooyu ñëwee ñu rangale ko fii may mën a sama xarit la a nir may mën nduur fay waaw waaw dalaa bëgg balaa gàmm gee ñëw sax balaa gàmm gee ñëw seeti ko maa koy seeti may mën a allah journaliste bu ñaawul bi intellectuel de haut niveau Pape macha allah sa kaas a ngi nii man nag sama kaas bi dama koy jox Souley sama patron moom la ñu àndal tubaarkàlla macha allah ci caméraman yi yaa mag laa koy jox su paree ma may ko Cheikh na Cheikh Sadbu su ma paree jox ko Mouhamed Mouhamed tubaarkàlla jox ko nag sunu baay bi loo ndaam papa moom suñu chauffeur la boo xamante ni moom la ñu àndal ci télé bi waa 7TV daal macha allah lii mooy équipe bi maam. Ah, waaw ñu fas yéene ànd ak yéen nag ci émission bu mag bi maam. bu ñu jógee foofu. dañuy ñëw ak yow ci diggante ci sa digganteek waa kër Aziz Ale Ndiaye. Alla bala maa ñëw ci waa kër Asi Alla Ndiaye. waaw nga ñëw fan. maa laajoon ci Kiné Lam bi. waaw acca waaw kay waaw kay ñu nga ci Kiné Lam. yaay ma bokk suñu ñaar yaay yee bokk ndey ak baay. ndeysaan. ñun daanaka yaay moo nu yar. Mm-hmm. muy xadis na. dëgg la. Mm. Euh, mën naa def fu ko neex. dëgg la ma mën naa def lu ko neex. dëgg la waaye Mbaye. mën naa def émission te du ca boole. Mm-hmm. waaye ñimewu ko. ndeysaan. barke yonent bi du ko def. dëgg la waaye Mbaye. xol baa baax. Mm. du ko def mukk ci àdduna daf maa jox cër maa ko mag man lañ ko ndeyale ñu ngénte ko ci Pikine gii ridis maam Buri Sàmb ak ma Maga Caane bokk ndey ak baay ndeysaan Buri Sàmb mu jur hmm. Maga Caane jur xale mu jur Kiné Lam dëgg la Kiné sama doom la hmm. waaye mënoon naa def ay yëfam génne ma ca dëgg waaye man xanaa xamoon ne ku ma wowul hmm. gis dëgg barke sëñ Babacar Si man mii. wallaay dëgg la mbaay. laay lay li laa. Hmm. man bala maa géer a sama bàyyi la. dëgg la dëggal li moom. da ngaa am fula. <laughs> ma ko talu sax mbaay. waaye maa nga cay ñett ñett rek fii la oto yi gaari di ma jël si. wallaay mbaay. ba barke Demba Ndiaye yàggul dara doomu musu koro mbay. Hmm. doomu musu koro ma jël si fii. ndeysaan. dama tànt sama yaay ne ne kenn def dara te ñëwoo ñëwal toog. <laughs> loolu loolu ngoy ku mu doy wallaay dara du la doy mbaay déedéet mukk mukk mukk ñett mbir baaxul. dëgg la da ngay toog ban soxla la. laay laay fekk na nga lambar lambar mm. bu ndaw. Mm. di ngaa ñu may ñaari junni. Mm. fekk na nga denc sa aram message bi ab Ablaye Mbaye Peex lancé woon ca émission bale ci la dugg. macha daf ni woon dinaa gis communicateur traditionnel yi ñu bokk waxtaan. ndax géwél. xamul xëcc baatu garaam bu bu géer doyadi géwél xamul topp géer ba ci oto géwél xamul ne salaamaaleykum cib géew jël géer ga nga war a woyaan mu teg la place nga fatt koon am na naawtal yu raw yu naaw dugg ci biir waaye géwél pire du ko def daa mel ni ku mel ne man ku mel ne age Mansour fu ñu ne salaamaaleykum ñu fekk ñu ca suñuy oto tatagale ñu fa teeroo ñu fa yóbbu ñu ba ñu dugg ci biir bâche <coughs> kon ma teg ci sama maam jaal mii waaw ndax lii mu wax téere la waaye man ah personnalité maam personnalité ah ak a mel xam sa ah. waaw waaw laaj nga lu garaaw mm-hmm. am personnalité mm. am dignité ci géwél déggoo ma way alaaj dam moo sonni ko am teraanga am kilifa waaw ñun loolu moo jafe waaw boo ko amee am ña nga àndaloon ba ngay xale jar ngaa ñaanal. wallaay dëgg la mbay. oh. boo ko amee. Mm. te bewoo réew. Ah. jar ngaa ñaanal jar ngaa ñaanal. ngoy mbay personnalité jar na lu ne. Mm-hmm. ku xeebul sa wërsëg dana la dundal. dëgg la. waaye tante bu ne nga dafa salaamaaleykum maaleykum salaam naam Dramé awa si seen nit def ci bâche yi léegi maam lambar lambar ji ci biir bâche yi wax ji ñëpp gàddu rajo soo ñëwee ci xew ñëpp gàddu ay rajo géwél yëpp. géer ñi sax léegi personnalité boobu te amul woon. dana ñàkk fayda. noo gëmul yàlla. dëgg la mbaay. ku gëm yàlla di nga toog fa nga toog. la fay fekk fekk la fa. dëgg la mbaay maa ngi gaas bi. yàlla lay yëkkati. dëgg mbaay. boo amee dem yàlla na la jug. xanaa xamoon ne yàlla mooy indiqué jàmm dëgg la mbaay leen dëgg la mbaay. awal nii. Mm. di nga daje kii. dëgg la dina la jox gëm yàlla. Mm. waaye tërëri. dàq oto loolu loolu groupé si oto ba kooku di tëj verre bi di tëjaale sa baaraam di la tas barke laa ji maas nga yuuxu nga yuuxu maam ñàkk noo mën a toll mhm. soo ma waxul sa xaw doo ma ci gis man maa la wax lii ma mhm. booy boo nu bokk day bokk baay yëga doo ma ko la lu ma ci wut mhm. te am na ñoo xam ne ñoo la ëpp capacité te ñu may wax am na ñu koy def nag waaye am na ñu ko dul def de ah, waaw maam am nañu koy def de waaye am nañu ko dul def dëgg du ñëpp koy def day mbay dëgg la moo du mbay garmi samag nag maa koy gërëm ndeysaan ndeysaan danoo am fii dëj bu métti gale maa mbay waaw fii ci maris gi dëgg la muy fàtki ne dem hmm. yàlla yërëm te ak naa dem mi mhm. bokk benn baay mooy taawu baayam dëgg la mu génn àdduna ci bisu màggal ga hmm. ñu ñëw fii di ko dëj ca biir su la dellusee waaw àdduna bépp dagg ñëw fii mhm. taman fii maa fi géwul dëgg la mbaay yéen ñëpp dañu maa teg bët. Mhm. xool ma. Mhm. fonk ma teg ma place. xam yaay kan considéré ma ko xew ne ma tànjaal mbay kaay. ndeysaan. Modou Mbaye fekk ma fi wax ma wax joo xam ne. Mhm. billaahi deful ma. looloo ko war. yal na gudd fan. looloo ko war. yal na ko yàlla may jàmm. looloo ko war maam. sagama bi sag bu rëy na. dëgg la. billaahi walaay boo maa ngi toog. maag sama doom moo nekkoon modérateur bi. ndeysaan muy Cheikh Tidiane Seck. Cheikh Tidiane Seck. jabaram nag baax lool. di sëtu Alaaji Baaba Jong ca Podor. ndeysaan ndeysaan. ñu ndey pexe jox. ndeysaan. moom la seexu naa mi di denc hmm. xale bii génn àdduna yal na ku yàlla yërëm amiin yaaka yaa rabbi samay dëkk loolu ñun ñëpp ñoo dëkk nii amiin waaye man cité ba ma fekkee da ngay defee ne man ah, ah, ah, na ko wallaay fonctionnaire nga xamuñu sax samay doom ndeysaan kenn xamu leen dëgg la mbay am naa doom joo ne hmm. ba muy jàng école ba am juróom-ñetti at sama ko ne hmm. ca géej waaye booba gone la sama doom yi bari ndeysaan yow xadi mbay nga demal ci kii euh, Fatou Seck mu ne ma ceeb mu dem dikk ne ma yaay nekku laa ilaaha illallaah ma di ko wax di ko wax ba mu ñeenti yoon ma di ko topp di ko topp mu dem tax ko ci buntu kër ba daal di ma ñeeku ma dóor ko ba mu bëgg a dee. <laughs> ndeysaan dóor ko ba mu dee benn bis mu dem. ndeysaan. nee na ko ceeb bu mu sóor. ndeysaan. yow ngay ku ne am nga démb. wallaay ku ne am nga démb may wallaay dëgg la mbaay. ay def ko ci ngox. wallaay mbaay dëgg la. booba nee na tudd la saw carax. Mm. ak sa dàll wu weex. Mm. fonkal nit ñi xoolal. Mm-hmm. mu daal di lekk ci ceeb. Mm. teg ca dóor na am. ndeysaan xaaral ma téeñal téeñal ko yoon ko xaaral li war a ñu ne ko doo mën a jërëjëf mu ko man ñaanu ma la ko de. laay laay li laa. sama yaay moo la ko ñaan. ndeysaan. ba mu ñëw ma fekk ci bureau ba muy liggéey. ci dignité aha. mu ko yow Fodé mu ko man géej waaye laa dëkk léegi maa ko jaar baay. Hmm. mu ko yéen a tudd mu ne ko xadi sekk. ndey xamoon naa ne. xamoon naa ne bureaucrate ngay doon ndeysaan. ndeysaan ndeysaan. <laughs> day am waaw dëgg la dëgg la mbaay ci yiw dëgg la mbaay sama doom yi kenn xamul déedéet laay dem xew ba fekk fa sama doom mukk mukk mbaay di taxawaalu xale yu ndaw yi wala gàdduy rajo la mu am loo fi waxoon bete bete bi nga juddoo nga am jëm lool waaw dama laajoon Aziz Ndiaye waaw xam nga yow bàyyi xam nga ni moom la li ñu dese dafa bariwul moo tax ma bëgg ñu tëjee Aziz Ndiaye ah, ak sponsor bi rek ñu dugg ci bete bete moomu waaw kooku mooy ndey koddu si dese nga cinq minutes lañu dese bariwul moo tax ah, waaw waaw maa jaamu noonu. waaw bu dem ba Ndiaye. ku reso Codé Ndiaye Amina Ndiaye maa ma si moom. waaye dafa am ku ma ko présenté. ndeysaan. ku ma ko présenté mooy Ndeye Fatou Gassama. Ndeye Fatou Gassama. Ndeye Fatou Gassama la euh, dëgg la ni ma demal fële dëgg la takk naa fa siir. ndeysaan. mu ñëw fekk ku mu loolu moom Ndeye Fatou. ma mhm. laajte kër chef de quartier Cheikh Tidiane Ndiaye taliban laa jàpp la. dëgg la mu rek way maam kër ga toj ma daal ma ne maa ngi nii man Ndeye Fatou dañ maa yebal ci Pape Touré ma yebal. ndeysaan. ñu fonk ma loolu mat na juróom fukki at de. waay laay na la ñu jàpp. ndeysaan. ndey kodd mii nag ak Ndeye Fatou doom ni gaay ak doom bàjjen. dëgg la waaye xaritam. Mm-hmm. may way way xew mun ma woyal ma ndey kodd. ndeysaan bu ma mm-hmm. woy. ma sama sang bi baax ci man. moo ko sabal gasama ñoo bokk ndey ak baay ak kinne dëgg la bokk ndey ak baay. ndeysaan ah, moo waral yàgg na de. yàgg na nga ca ñooñu. ndeysaan maa ah. lii lañ leen indiloon ci émission bi dañuy ñëw ak moom ci Kiné Lam rek. mu wax ci ci digganteem ak ñoom Aziz Aly Ndiaye. Mhm. Eh, jël benn morceau bu mu mës a way tuuti rek ci tàggatoo bi. dugal ci parce que ku ne jaal mbaay jaal mu ni ki ne làmmam bamba ñu dese woon nag ngoy mbuub dong miñ ma tuddee miñ ma duppe man wallaay bàjjo jigéenu gu alaaji gumba seen sa turandoo rafet sama turandoo rafet moom rek ngeen dese woon ci way jur loolu la nu bokk ma ak yéen tubaarkàlla kon maam bu nu too ñëwee macha allah def fi émission bi ñu bëgg a xam sa kàdd gu mujj ci sa diggante Kiné Lam Tuuti sa kàddu gu mujj ci sa digganteek say mbokk sa kàddu gu mujj sa digganteek say sëriñ ak Aziz Ndiaye Abdou Aziz Ale macha allah laaj nga ma lu ma safar na waaw caméraam ndeysaan ba tey ñoo nga ca lañ nekkoon gis ma demul ren sax mhm. dafa am dëgg la man këram laay nekk Touba mhm. su ma ñëw fal nag wa a rëy fal ma ñëw ndeysaan jabal ma ca mhm. ma ca lépp dëgg la ñu ne dangaa nekk mag di ma dimbali dëgg la di toog ba yàgg mu yónni ma xaalis nga dem kii dara. Mhm. Ah, daa dëgg yàlla. ci boolewul nga taf ko ci mhm. dëgg la. sa ci moom. man moo mat mhm. nag. dama ko xanaa xam ma jox lii ma so. waaw yaa ngi koy wax sànq macha allah. ku ne sama waa jooju. moo ma dugal kër baayam. baayam damaa may paasu màkk. ma paasu màkk laa waxuma umra ma ma ma jox ko sama jëkkër. dëgg la. mu dem ndeysaan loola mu yóbbu ma umra falaa la fekk wallaay mbaay xanaa xamoon ne jàngul bëgg a tari ay fen la wallaay mbaay dëgg la te boo dee waxul lu dëgg boo wax ci média bi dëgg la mbaay dëgg la ñëpp koy dëgg dëgg ndeysaan nga ma kër yaa xam ja lan kër xam ja may woy di jaay maa koy nuyu de passage ànd ak moom di dem mhm. di ñëw mhm. jidda wallaay mu jaarale ma nag ci Cheikh na ma Tidiane Sëriñ Fass la ma jëkk a wallaay ndeysaan ma siyaare seen naa Cheikh mm-hmm. mu indi ma ma ñëw ci yonente moom alaaji ali sallallahu alayhi wa sallam ajjane fa wallaay dëgg la bàyyi ma ba léegi déedéet na ko gàmm depuis depuis juróom fukki at ma koy ñëw mm-hmm. Aziz Ndour di sama doom ndeysaan màgg nag te bàyyiwul mm-hmm. lu yaatu nag kenn du ko xatam ndeysaan man damaa bëggoon ñëpp ñëw dëgg la waay te ñëpp ñëw na dëgg la mbaay moom la ñu xam wallaay mbaay <laughs> moom la ñu xam ndeysaan bàyyam laa xam ak ndeyam ba léegi. ndeysaan yaay ma solo kii gàmmo ji naa ko sol ci émission bi. waaw waaw waaw mu gis ko. mu gis ko rek mu gis ko yow da ngaa am wóllare. Ah, li lépp ci wóllare la bokk. nga def sa rose bonbon bi. moo ma dugal ci kër ga nag. ndeysaan am fa ñetti wujj nag. Mhm. wujj yëpp ñu bokk ndey ak baay anam. Mhm. félicité ma leen. déedéet. moo tax ñu nekk samay xarit. dëgg la mbaay. ak yéen su xarit loolu. ndeysaan Mm-hmm. Aziz moom màgg na taqaliwu maag ndeyam mm-hmm. ak ay jigéenam doomu jigéen doomu jigéen bu baax la xujaan ndeysaan taqaliwu maag seen yaay de mm-hmm. mm. eh, a bari wallaay li nga xam a bari mbaay ndeysaan amiin yàlla may yàgg amiin yaaka kon nag mm. loolu lañ leen indiloon ci seen émission bu mag bi muy ëttu kër ndaanaan yi macha allah ñu ji ànd ci ak Pambay suñu doomu baay El Hadj Ndiaga Mbaye moo yor xalam gi ñu ñëwoon fekk si sama maam Diall ci émission bi ñu naan ëttu kër ndaanaan yi ànd ak télévision bu mag bi ñuy wax la télévision 7TV télé bi ñu nuru ba noppi te di ñu dajale la télé qui nous ressemble et ressemble. may jàkkaarloog sama caméraman Cheikh Cheikh na Cheikh Sadbou di ko ñaanal ci doole Cheikh na Cheikh Sadbou yàlla na ko yàlla teg loxoom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ci sama càmmoñ ma jàkkaarloog Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey it caméraman la ma jàkkaarloog tubaarkàlla ah Souley moom ñoo bokk sunu ndey alaaji ajaratu naxe moom ñoo ko bokk maak moom naxe géy macha ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm Souley laa ci àndaloon lii lañ leen indiloon nag ñëw ci kër bàjjen Dial di leen wax ni nag na ngeen ñu xaar ci yeneen ndaanaan ndax ëtt bi kër la ci ñoom te kër gu ne dinañ fa dugg toog ñoom ci ëtt bi nii ñu toogee ci ëtt bi macha allah def ak ñoom émission bi kon nag ba yeneen ni jamono Badiane Dial macha allah looy tàggoo. tàggoo ci jàmm rek. ndeysaan budul tàggoo. Hmm. yow it nag mbay maa ngi lay sant la ñaan. jërëjëf Baye jërëjëf Baye yàlla na fi yàlla yëg jërëjëf Baye nee naa la baax Sénégal yomb waaye génn baax moo def. saan ku la fekk ji jidda xam ne ko am jom. dëgg la sa yaay ku am jom na ba lay ne. ndeysaan te la muy jaay maye. waaw waaw. Baye yàlla yàlla may jàmm. amiin Baye amiin Baye di bi. waaw waaw. kooku dama koy njëkk di ko mujjee mooy Seydi Hadji Malick. ndeysaan muy Maodo mhm. bi ci ci corniche bi. corniche ah waaw fële. almadi. mu ngoog waaw. Euh, du Ndiol de. Mm. sëñ Moustapha Sy. déedéet ndeysaan. xam nga kan la sëñ Maodo si doomu. sëñ Maodo Tabara Gueye doomu taawu ala jabdu. dëgg la mooy jëkk borom këru ndey sëfi. Mm-hmm. mu aminta ndóoy. ndeysaan. naa ne yaay njóogu ndoy ku baax. wallaay dëgg la. sama kooku mu ne ñu ma bokkal bàyyi te bàyyi wuñ ma. Mm. bu ñuy sombi sax ne wala jàll mbaay. waaw xoolal loolu nag acca. boo ko amee. waaw waaw. waaw waaw bu jëm nga juddoo nga am jom lool war naa ni kenn yëbu la ko du soxna jaar bi nga màggee nga tekki bete bete bee ñuy remercier Papis Mbaye bu baax ak Adama macha allah jàpp nañ bu baax a baax a baax ci émission bi ndey ko du soxna njaay ndey ci jan njaay alaay ndey njaay ndey awa njaay màggee da fekk mbete mbete ba. ndeysaan. waaw waaw. ndeysaan aywa kenn yóbbu laa. cey. bu di ñuy diw baax na ñu ni mbokk yaa ko wax. lañ leen ko ndey faatu gasama. aywa aywa. dina màggee da fekk mbete mbete ba. ndeysaan maam ndeysaan ndey mbay sa baax baax yaay ndey mbay sa jég gënu ko ndeysaan bilaay ni kenn ki ñaan ndeysaan bi nga màggee nga tekki a ngi way de oh, masha allah ndeysaan papa ca demal aw njaga mbay sa baay laa jëkk am na Amérique réew mu ma yàlla na ko fan amiin bilaay kenn gënu waaye ma mu jaar. waaw yar na nga mbaayoo. waaw ak maam da baax Malick. waaw darab aram moob maam kumba caam ma baax ajaajatu jaar mam jaar yow yàgg fi te baax lool amiin yaa ko ay bàjjanam moo mu faama ndeysaan bete bete be ndeysaan déglu leen déglooti leen ma wax ak yéen ndaanaan ni réew mi laa bëgg